ba tey ci seen scandale di jour nañ dem seetaani vidéo bi nga xamante ne kii di abib Sy def na ko jëmale ko ci président Macky Sall moom nag nee na ça va pas dans la tête de président Macky Sall hmm, d'accord nañ dem seetaan vidéo abib Sy bi ñëwaat. di jégalu ci awa tardé bi monsieur le ministre. wante xam naa ne li nga wax léegi yaa ma ko gën a xam parce que nekkoon nga corps de l'État madame le premier ministre mi ngi toog nii moom def naa ne ñun li ñu yàgg a Macky Sall lépp moom moo ñu ko gën a xam parce que moo doon premier ministre bi may ñëw léegi sama benn goro bu nekk France daf ma woo mu ne ma boo xamee gàcce gi ñu nekkee yàlla rek ko xam mu ne ma dama am ay samay xarit ay investi investisseur waxoon ak man ba bëgg a ñëw Sénégal <clears throat> mais ñoom ñëpp fomm nañu mu ne ma li ci gën a doy waar mooy ci réseau sociaux yi foofu dañuy méngale Sénégal ak Palestine di ko méngale ak Ukraine mu ne xamuloo sax Macky sàll tooñ bim ñu tooñ fan la yem

man xam nga lan moo ma doon neex lan moo doon tax ma gën parce que projet Pastef bi yëpp bii rek nga ciy dégg dañuy xeex système bi dañ fiy jëlee système bi xam nga lan lañ doon xaar bu dee dëgg la li ngeen di wax dëgg la doo leen ay naa fekk jaxase woo leen dëkk bi Mimi Touré bu ñëwee da ngeen ko ne eh on veut pas de toi parce que da ngaa judd ci système bi màgg ci yaroo ci 12 ans bu fekkoon doom la. ñi xale yi juddu woon 2012 ñi juddu woon 2012 ñu ngi dox seen soxla ndax maximum am nañ 12 ans am nañ 13 ans am nañ 14 ans dugg nañ ci âge de la puberté màgg nañ xàmmee nañ ràññee nañ donc mën nañ ne ñoom Mimi ñoom Habib Sy Habib Sy moom moom moo gën a yàgg ñëpp ndax moom ca ñële la nekkoon le père di système. ki tax ñuy naan système Abdoulaye wadd ex président fa la jóge waa léegi mu ñëw rangé wu Sonko jël ay député mu jox ko ngeen ngeen da ngeen di xeex système te yéen xamoo leen sax lan mooy système c'est quoi le système man man maa ngi dégg mais xaw ma luy système ay affaire branlon ay affaire kii jàng na kii jàngul ñu jox ko poste ki jàng injustice boobu mu ngi commencé yàlla suñu borom moo ko fi njëkk teg da ngay gis ku yor juróomi doom kii am benn yàlla bàyyi ko ak waajuram yi bay waajuram yi fi ñuy koy gën a bëggee fi muy toog di leen amal njëriñ mu rocci bàkkanam bàyyi kee ak ay cinq doomam xanaa injustice fa te yàlla ñu koy teg te dañ koy dëkku on fait face à tout ça dañ koy dëkku nga gis nit yar doomam ba màgg jëkkër ji wutal ko wujj wujj bi jur ay doomam uuf leen dem ci sëriñ njabat yàq ki am benn dofloo ko du amal njëriñ benn parent yi te yàlla lay ñaan mu doog mu am ana injustice boobu wax kenn mënu cee wax parce que fii lañ ko fekk injustice dañoo juddu fekk ko fi te dañuy de ku fi ne dinaa fi jëli injustice mën nga jëli un pour cent deux pour cent jusqu'à cinq pour cent mais mënoo ko fi dindi te man je pense que loolu mooy système bi mooy que ministre bii démb pauvre na woon tey am na xaalis suñu xaalis bi la lekk te waru cee lekk wala leneen lan mooy système bi léegi ngeen jël Habib Sy taf ko seen bopp ba tey boo leen di def conférence de presse ngeen boole ko ci les Aly Ngouille Ndiaye ngeene ne opposant Mimi Touré ngeen ne mooy seen bàjjen seen bàjjenu gox moo leen di défendre fu ne ngeen tax ko seen wet ngeen ne leen da ngeen di xeex système man balaa ma doon gëm ni waa ex dañuy xeex système ñu dakk Habib si ca xaj léegi ñoom ñi génn ci pouvoir bi nañ dem def seen coalition bopp Guy Marius Sagna kii autant pour moi euh, ali Ngouille Ndiaye Mame boy Diao les Habib Sy ñoom Mimi Touré nañ def seen coalition yéen ñii di xeex nga xam ne seen combat principal c'est le système ñooñu waruñu woon bokk ci yéen man ci laa leen weddi ma ne leen man bi ma gisee Mimi Touré ñëw nuyu Sonko ca pojam ba laa bàyyi politique laa weddi ñëpp kenn laa ci jàpp mooy maître mu jàppee ba léegi bàyyiwut te ba muy jóge ci mari Macky sax dafa waxante ak Macky lu leer ne ko wóolu naa la tànn naa la ba tey jii waaye day dakk doo ma tànnal ki may topp ngeen ne ngeen da ngeen di xeex système bi Habib si mooy wax noonu nee na président Macky dafa dof wérul <laughs> dof boobu mooy sa président waaw mooy sa président dégg nga en tant que président ñun bëgg nañ dof bi bëgg nañ ndax moo ñuy représenté mooy suñu président bañ bañ nangu mooy président ba keroog di élection di am ah boobu gën a dee mooy président. ba keroog di élection di am ba keneen duggaat ci pale bi wala ah ah ñu toog informer sénégalais yi ni que président Macky Sall wàcc na mais amaguñu ku fay toog dañuy xaar maanaam Sénégal nekk sans président mais la tant mu ngi fii mooy président dof na mooy président wér na mooy président bandi la mooy président sàcc la mooy président loolu la yàlla dogal. te dof ba yéen a ko faloon ndax nee naa leen ñun ñii gone yi voté lu ñu Macky Sall mukk 2012 dañ daan gis oto yi rek di topp di daw poussière ñee du ñu sol dàll sama genre gii ma bañoon dàll du ñu sol dàll topp ca gannaaw oto ya da daw foo dem ñu dàq la buuxante ñun ca lañ tolloon donc yéen yéen a fal 2019 sax man fekk na awma dante te faluma ba tey j'ai jamais voté parce que boobu mënuma voté aw ma dentité mais tey tey tey tey bu ñu defoon élection ma votel maître El Hadj Diouf ndax moom laa àndal mais ma ne Macky dof bi yéen ko fal fal ko falaat ko.